ñi nga xamantene ñom ñoo ngank keuru liggéeyukaay yi doon ay sénégalais yo xamné dañu jël sen copar diko def ci suñu kom kom di créer li nga xamné moy ay liggéey ay ay ay xey ci ay sénégalais waye tamit di tax ba Sénégal ñukay kañ fu ne muy ay jambar ñoo xamantene dañ leen wara jappalé taxawu leen ci liggéey bi ñuy def ndax Sénégal lañ koy defal. tay nak ñu am le xalaat bu rafet président Babacar Ngom directeur exécutif sama xarit Abdourahmane Diouf ñu leen di sant ci taxaway bob moy ñew set ci état jël ci xibaar yi ngir luñu defati rek ñu mën ko def ak ñom lool nak mosu fi am té ñu ngi leen ci sant di leen ci félicité li am solo moy ñu xamné état du Sénégal euh, sopp na ay ay ay entrepreneuram état du Sénégal bëgg na liggéey ak ay entrepreneuram té ay pré entrepreneuram li nga xamné nak moy programme yi nga xamné mo nekk ci sama ministère muy programme zéro bidon ville programme zéro déchet dinañ fexé ba ñoom luñ ci wara am ñu am ko ci ndaxte ñun buñu ñu di liggéey sénégalais yi ñu tax a mais sénégalais yi ak seen entreprise tamit entreprise Sénégal yi liñ doon wax rek ci discours bi tamit moy entrepreneur yi bu état gor góorgóorloo ba fexé gën leen duggal gën leen jox doole ñu fexé tamit liggéey bi di gëna a gaaw ñu fexé tamit liggéey di gëna doon qualité ndaxte tamit population yi dañuy xaar mënuñu taxaw ne tay logement yi dañ ko yéex a joxe ndax entrepreneur ba deful liggéey bi ni mu ko waree woon mënuñu taxaw ne tay ne centre intégré de valorisation des déchets yi mënul paré ndax mën naa maintenant nous sommes en train de faire ce nous défendre, En tout cas, nous avons confiance en nous. sopp nañ leen waaye am nañ yaakaar ci ñoom ndaxte Sénégal bu demee bay def 6 pour cent de croissance euh, président de la République loxoom mi ngi ci xalaatam a ngi ci waaye entreprise yi tamit c'est parce que dañ ko topp ci fi nga xam ne foofu la joxoñ donc ñu ngi leen di sant te di leen woo di leen gëna a ñaax te dinañ gën a liggéey ak ñoom teg leen fi ñu leen war a teg ni ma ko waxee sama xarit Abdourahmane di ko tooñ fépp fu ñu leen war a aaree dinañ leen aar fépp fu ñu leen waree mën na am tingoom ba ñu gën a jot ci mbir yi dinañ ko def ndaxte ñun Sénégal la ñu tax a moo xam sénégalais yi ak entreprise yi nga xam ne ñoo jógee Sénégal xam nga loo gis rek waxtaan ak wat gaal yëgoo nii ñu toogee nga xam ne ñoom xamal nañ leen ci ñun ci li ñu jëm ñoom it ñu xamal ñu ñoom lan lañ mën ak ñoom ñooy ñan loolu day tax rek lu amati ñu xam kan la ñuy contacter naka la ñuy def ndaxte bëri na ci àdduna lu doxul ndax ñàkk waxtaan rek te lii nag dañ leen ciy jaajëfal ndaxte waxtaan moo jiitu lépp. cent 100000 logements yi tàmbaliwuñ ko avril dañ ko annoncé avril gis ngeen ne mois d' octobre bi laa dem euh, commune bi xamante ne moo jiitu ci liggéey bi muy commune Niotto Diobass 100000 euh, logements boo ko déggee. objectif la slogan la tamit deug la ndax ndaxte li gën am solo du euh, ñu àgg cent mille logements mais moy ñu fexé ba Sénégal ñu yewu ci ne ñun kat dëkkuwaay yi dañ ko wara gëna jappandal dañu wara gëna fexé entreprise di ko mëna tabax dañu wara gëna fexé a fexe carreaux yeeg peinture yeeg bunt yeeg lépp ñu koy Sénégal ndax ëllëg ëlëk buñu fekkee y ci 100 000 logements ñu egg 80 000, wala cinquante 60 wala soixante loolu li nga xam ne moo a am solo mooy ñu xam président Macky Sall fekk nañu 4 000 logements maanaam ñeenti logements. logement mu ba ci fukki wala fukki junni ak juróom ci ay wax ci bu novembre lay pare novembre pare décembre wala janvier euh, loolu du gàcce li nga xamante ne moo am solo mooy fit bi nga am ba andi projet bu mel noonu boo xam ne dina wàññi coono Sénégal yi euh, kóolute bi nga am ci ñi nga xam ne ñoo lay lebal xaalis ba ñu mën laa jox xaalis bu toll noonu nga def projet bi donc bu ñu nekk rek ci ay détails yu ndax waxtu wi tàmbali ndaw li am solo mooy écosystème de la construction promoteurs yi ñu yee leen jox leen moyens yi jox leen conditions yi ba nga xamante ne xar kanum Sénégal ci wàllu logement dina soppeeku ci juróomi at yi bu baax a baax. li ñu fi dajale tey mooy waxtaan bu ñuy am entre ministre de l'urbanisme nga xam ne sama frère sama xarit Abdou Karim Fofana moo ko jiite ak le club des investisseurs sénégalais bi nga xam ne Babacar Ngom moo ko jiite man ma nekk directeur exécutif. waxtaan bi li ko indi mooy da nga am ci benn wàll bi état mooy gouvernement nga xam ne dafa am ay projet état bu amee ay projet dafa am ay option

lima ma ligue sama dëkk amna ay sénégalais yo xam ne mën nañ ko def ñun club investisseur, yi ñi nga xam ne ñoo fi nekk y' a au moins 75 sénégalais qui sont membres de notre club ku ci nekk am nga benn entreprise ñaari entreprise ñetti entreprise te ñi ngay employé ay sénégalais lañ donc nag ñu am déggoo ak état bi ne ligue boobu nga xam ne da ngeen ko bëgg def te ñun entrepreneur sénégalais mën nañ ko jox leen ko boo ko joxee ñu def ko yéen di ngeen ci gagné parce que di ngeen liggéeyloo sénégalais yi ñun dinañ ci gagné parce que ay entrepreneur lañ mais sénégalais aussi ñoo ciy gagné parce que xaalis bi nga xam ne moom ngay gagné ci projet yooyu moom ngay investir at Sénégal mu nekk ay emploi jeunes yi gis ci seen bopp jigéen ñi gis seen bopp ñëpp ñëpp gis ci seen bopp pour man nag modèle de partenariat la boo xam ne dañ ko war a encourager te heureusement le ministre maa ngi ko koy wax léegi ci français comprendre na ko buy wax des fois damay am impression que moom porte-parole secteur privé la ça veut dire que xam na ni li fal ñi ce sont les citoyens sénégalais citoyens sénégalais yooyu ñoo nekk des entrepreneurs te ñoom ñaar ñëpp dañu war a liggéey ba nga xam Sénégal moo ciy gis seen bopp. li nga xam ne moom laa ciy des fois boo secteur privé national ñu xaw a xalab ne ñoom kat boo leen joxee liggéey bi liggéey bi dafay yeex wala liggéey bi du pare des fois sax ñu ne la ñenn ñi dañuy jël avance de démarrage ba pare dootoo leen gis ma ne nag ñun au niveau du club des investisseurs nekkuñ ci modèle Bob. parce que ñi nga xam ne ñoo nekk ci club bi ce sont des gens yoo xam ne def nañ seen ay preuves ay entreprises yu mag lañ yor yàgg nañ fi tabax yàgg nañ fi liggéey loo xam ne sénégalais yi teg nañ ci seen bët mais li am solo mooy nit nga xam loo mën li ñu wax naan cuuc day xam loo lekkam cest à que ñun dañ ko nañ club boo xam ne dañu am ambition am na fu ñu bëgg a dem mais xam nañ lu ñu mën ak lu ñu mënul am na loo xam ne tey boo ñëwoon jox ko kenn ci ñun ne ko tabax moo xam ne mënu ko bu ko jëlee dafay engagé suñu responsabilité ñun ñëpp.